bi mujjee nag mooy wax ji bëri na ci mbirum sécurité lenn ñi di wax nag weddiwuma ko ñoo ngi jël suñu matuwaay ci lañu mën waaye ku la yéene kaso ku la yéene dee koo xam ne lu mu xalaat ci lu bon la suñ la nee mag lay pexeel bu ko xeeb ñoo ngi jël nag suñu matuwaay pexe bi yàgg na 2019 wala 2018 parce que am nañu chance am ñu ne ci biir xam li xew yépp ci la ñu njëkk a avertir boobu maa ngi waaj a defi tournée Casamance ñu ne ma boo demee def tournée Casamance waajal nañu ba boo duggee ci àll bi ñu tiire ñu fital la fa ba pare ne nit ñu nekk yor gànnaay nekk ci àll ba ñoo ko def loolu waraloon ñu ñu annulé suñu tournée boobu loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bariwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom ki mbokkam la kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu àndil bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, ci déglu bi